bilaay yow lañuy damoo sëriñ bi ñoo ngi lay damoo sëriñ bi ñoo ngi lay damoo baay sang bi yow lañuy damoo bilaay yow lañuy damoo wallaay baay lañuy damoo di damoo di damoo yaaram bi yow lañuy damoo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 nuyoo bi di ci jiital kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci islaam ñoo nekk ci réew mi fii ci lislaamu di di ci teg kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci aaday réew mi gannaaw bu nuyoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci lislaam bi nekk teg ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci aaday réew mi ñu ngi nuyu mboolem sénégalais ak sénégalaise fu mu mën a nekk ñu ngi koy nuyu waaye di am mbégte ak contentement bu rëy ci site bu am solo bi nga xam ne mooy Barhamiennes TV nga xam ne ku dégg tur bi rek xam ne tuur wi rek uyu na borom bi macha allah site bu am solo la te xale bu am yar moom moo ko moo ko yor di ko di ci liggéey di ci wan mbir yi nga xam ne moo aju ci mbir pays bi ak lu aju ci mbiri àddina bi di ko ñaanal yàlla yal yàlla barkeel liggéeyam yal na yàlla yaatal liggéeyam yal na ko yàlla may tawfiq ci liggéeyam barke yonent yàlla Muhammad ah, nag ñu ñëw am benn thème bu am solo boo xam ne tey moom lañu tànnal ñu waxtaan nañu nañu waxtaan ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam degré yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy tolluwaayam walla kattanam wala mayam wala euh, dayoo bi nga xam ne yàlla jox na ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci bind gi nga xam ne bind na ko ci tànn gi nga xam ne tànn na ko ci yónni gi nga xam ne yónni na ko ci gënal gi nga xam ne gënal na ko tey tànn bi tey tem bi loolu la mooy lan mooy kattanal yonent yàlla moom salaa salaam wala lan mooy degré bi loolu mooy waxtaan wi alhamdulilah yonent yàlla muhammad salallaahu alayhi wa sallam tey boo bëggee wax li nga xam ne tey mooy may gi ko yàlla may doole ji ko yàlla may kattan gi ko yàlla may boo ko bëggee tey faram waxtaanal ko ak mbokki jullit yi dana nekk tem boo xam ne tem bu am solo la danañ ci xamee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngëneel gi nga xam ne gën na ko ana lu ko waral dayoo yi nga xam ne yàlla eggale na ko ci ana lu ko waral feeñuwaay yi nga xam ne yàlla feeñal na ko ci feeñuwaayu uute ak benn bu ci nekk ni nga xamee ne noonu la jomboo ci nit mu feeñ ko ci moom loolu dana dana dana tegtale kàttanam dana tegtale dooleem dana tegtale dayoom ci lan mooy ci waa yi nga xam ne benn bu nekk ba mu feeñee ci moom ba léegi amut ci kenn kum feeñaat ci moom loolu dinañ ci xamee uutee gim uuteeg mbindeef yi may danañ ci xamee na mbindeef yépp seen may mu ngi ballee ci mayam loolu moo tax tey ñu ne nañ ko waxtaanee alhamdulilah yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi am ay maratib yoo xam ne martaba bu nekk dafa am lum jàngale martaba bu njëkk bi nga xam ne moom moo jiitu ci moom ci li nga xam ne mooy amam gi nga xam ne am na ba nit ñi xam ne ku am la walla buy wax nit ñi moom ku am la ana lan mooy cosaanu wala lan mooy njëlbeenu nettali giñ ñu war a nettali ci moom ne moom ko am la te nangu mën koo xel man koo nangu xol mën koo nangu logique mën koo nangu mooy li nga xam ne mooy yàlla ba mu ko waxee na ko kun habibi wax na ne ne bàyyi Cheikh Cheikh Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu wax na ne fannas atuhu kamziyatul ahaqi wahduhu, lidhaka atana qasiman wa mukhasama ci ibrahim ñas radiyallahu anhu jangale na yonenti yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jangalin bo xamne ne ni ku ko xam la mo wax ne man rama darki istiyaq nabina fa qad rama amran mustahalan muharrama bàyyi mu ne gën maa bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu lu jomb la képp ku ko wax mu ne wax nga loo xam ne duut lu am kon Mawlana Cheikh Ibrahim Niass jàngale na yonent bi sallallahu waaye tey bu ñu indee thème bi nañ waxtaanee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moomu nga xam ne moom la yàlla tànn ci mbindeef yi gënal ko ci lépp lu mu bind ñu ne nañ waxtaanee lan mooy farsam farsu bi njëkk ci yonent yàlla Muhammad salaa salaam bi nga xam ne moom la rawee képp kum raw mooy tànn gi ko yàlla tànn xaskan ko boppam nga xam ne yonent yàlla Muhammad salaa salaam yàlla mooy martabaam yàlla mooy dooleem yàlla mooy ki nga xam ne mooy moo ko jox kattan bi mu am moo tax bi ko yàlla defee jaam daf ko laaf ci boppam moom it bi nga xamee ne mu ngi déclaré boppam dafa laaf boppam ci yàlla Abdullahi ba bi muy ñëw ci àddina baay bi ko indi Abdullahi la tudd martaba bi nga xam ne moom la ko yàlla ooxee Abdul maqaama bi ko yàlla ooxee Abdullahi la ko tuddee mooy jaam bi nga xam ne yàlla mu ko laaf ci boppam bépp mbindéef wala bépp mbir moo xam ne yàlla amal na ko utal ko tudd ko laaf ko ci boppam may ne ko ngëneel goo xam ne ci mboolem lu mel ni moom gënee na ko ko soo demee ci al baytu néeg la rek waaye ba ko yàlla waxee ba ko yàlla laafee ci boppam lañ gis mu xam ngëneel ga boo gisee ñu ne naa naakata naaqata mooy gëlëm rek waaye ba ko yàlla laafee ci boppam lañ gis ngëneel gu ko yàlla may kon dangay ngay gis ne naaqatallaahi boo gis na baytullaahi da ngay gis habdullaahi dangay gis habibullaahi da ngay gis loolu yooyu ay mbir la yoo xam ne martaba la yoo xam ne kenn ku ko yàlla jox laaf ko jëmale ci boppam rek da ngay gis ne yàlla may na la ngëneel goo xam ne danga ko gënee képp ku mel ni yow. moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla waxee ne ko yow nekkal nekk sama soppe mooy kun habibi booba bokkut ak bi nga xamee ne yàlla bind na ko moo tax damay wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu Muhammad habibullaahi bokkul ak muhammad rasulullaahi bokkul ak muhammad euh, nabiyullaahi bokkul ak muhammad ib euh, muhammad habdullaahi bokkul ak muhammad ibnu habdullaahi juróomi martaba la yoo xam ne benn bu ci nekk yonent yàlla muhammad salaa salaam moo fa feeñ waaye martaba ba feeñee dafa utee moo tax ci xabib boobu bi ko yàlla waxee na ko kun xabib yi nekkal sama soppe da gis alquran bi muy wax ne innama amruhu isa arada say say say an an an an yaqula kun fa yakunu bi mu koy wax subhaana si asra bi habdihi laylan da gis ne kooku jàmba la waaye nga fii habib bi la habib bi moom la yàlla wax ne ko kun habib bi fee gis ne rañaan nga jàmba la subhaana la si asra laylan kon da gis ne jàmm bii moom la yàlla rañaanee bokkut ak da mu wax ne wa innahu lama qaama abdullahi kon da gis ne foofu habdu gi la fee ne mu ne alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba da gis ne kooku habduga la yaa ngi dégg kon da gis ne yàlla wane na ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay feeñuwaayam ak ay maratibam maratib yu uute la kon balaa muy ñëw ci àddina yàlla bind na ko yonentu yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna minallaahi wal man maa baxee ko ci jëmm yàlla ji lépp loo xam ne rek gëm na yàlla ci man la man la baxe ko moo lay xamal ne mbindeef yëpp bi ñuy jógee ci yàlla dañ ko gëmoon moo tax bi ñu ñëwee fii ngay dégg ñu ne kii kat nekkut ku gëm yàlla moom la ñuy tuddee kaafir booy éeféer yi nga xam ne weddi nañ yàlla kaafir la dañoo gëmoon yàlla waaye dañ koo weddi kon dangay gis ne bu waxee wal mu'minuuna mi nii noonu googu mooy tegtale na mbindeef yëpp ci moom lañ jógee parce que ñëpp ko gëmoon ñëpp ñoo gëmoon yàlla amul kenn ku weddi wu woon yàlla waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moomu nga xam ne moom la yàlla yónni bi nga xamee ne yàlla yónni na ko bi nga xamee ne yàlla amal amal na ko bokk ak bokkut bi nga xamee ne yàlla bind na ko moo tax yàlla wax ci yàlla wax na ne rasulun minallaahi yatloo suufan mutahara da dangay gis ne yonentu yàlla mu sallallahu alayhi wasallam bi baxee koo ci yàlla dégg nga ko bokkut ak bi muy wax ne jaa euh, laqad jaakum rasul min anfusikum bi yonent bi nga xam ne dikkal na leen te baxeekoo ci seen bakkan baxeekoo baxeekoo ci yéen kon da ngay gis ne muhammad bi baxeekoo minallaahi bokkut ak muhammad bi nga xam ne moo baxeekoo min anfusina nga xam ne yàlla moo wax ne rasulul euh, euh, minallaahi yatlu suufan fee mu ne jaa laqad jaakum rasul min anfusikum kon da ngay gis ne martaba yi bokkul rasulun min eh, eh, laqad jaakum rasul min anfusikum kooku muhammad ibnu habdulaahi la ndax habdulaahi mooy baayam yaayam mooy aminatu kooku moo jugee ci ñun kooku nag ci moom la yàlla wàccee alquran waaye yonent bi nga xam ne mooy eh, moom la yàlla wax ne ko kun yi ci moom la yàlla génne kawnu bi ci mom la yàlla amalé haqiqatu muhammadiyya koku moy yonentu bi nga xamné mom la yàlla amal yonentu bi nga xamné mom la yàlla amal bokul ak yonentu bi nga xamné mom la yàlla bind yegi nak muhammad bi nga xamné moy muhammadu rasulullah mom la yàlla waxné ne muhammadu rasulullahi waladina maahu asidahu ala al kufar ruhamahu bainahum ila aaxiri bi nga xamee ne yàlla wax na muhammadu rasulullahi alquran moo ñu wax ne wax la mu anna fiikum rasulullah xam leen ne fu ngeen mën a nekk yéen a ngi nekk ak yonentu bi maam aadama alayhi salaam bi nga xamee ne yàlla bind na ko mu def bàkkaar ba ba muy tuub ba mu jàngee rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna minal xaasirin ba mu ko tuubee yàlla def koo baal Eh, eh, gis nga ko fa talaqa aadama min rabbi kalimatin ah fa taaba alayhi innahu tawaabun rahim ah eh, maa ngi jéglu ci kàddu bi yaa yaa ngi dégg fa taaba alayhi alayhim innahu huwa tawaabun rahim yàlla maam aadama bi nga xamee ne tuub na bakkaaram ba yàlla daf ko koo baaxal waaye baat yam tuubee yàlla moo ko jox baat yooyu nag mu tuubee ba nga xamee ne yàlla jéggal na ko ba may bëgg maam Hawa jóg bëgg a dem ci kawam gaa yi dañ ne ko mënoo seeg maam Hawa lu dut da can maam Hawa ñu ne can gi lan la ñu ne julli ci yonent bi ñu julli ci yonent bi kon wax na ne yàlla laaj na ko noo def ba xam Muhammad mu ne ko damaa xool ci xaras ma gis ne fépp foo bind sa tur wi gis naa nga bind ci boo bindee laa ilaaha illallaah rek gis naa nga teg ci Muhammadu Rasulullah kon muhammad rasulullah bokkut ak muhammad nabiyullah daa ngi dégg kon doole ji la ñuy jàngale pour wan nit ñi uutee gim uuteeg mbindeef yi ci ci xaalam bi nga xam ne du xaalamu insaaniya mais xaalamul ilaahiya la nga xaalam ne xaalam boobu foofu amrulaahi yi ñoo fa nekk mbiri yàlla yi ñoo fa nekk nga gis ne yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi yàlla amal na ko Euh, mbindeef yi xam ko xam ak amam lu jiitu ak juddam yaa ngi dégg kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah kooku moo gàddu risaala ba waaye muhammad nabiyullah kooku moo gàddu nubuwatu kooku moom la alquran di wax ne maa kaana muhammadin aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullah wa ah wa xaatama nabiina walakin rasulullah wa xaatama nabiina da ngay gis ne kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla bind na ko waaye bi ko bindee dafa def ci moom nubuwa nubuwatu googu mooy différence ak nit ñi ci li nga xam ne mooy bindin nit la waaye muhammadun basarun wala laysa kal basara bal huwa kal yaqootu bayna al xajara wurusu yaqoot la wu nekk ci diggante ay doj diggante doji màkk yi waaye du nit ko nit la waaye du koom nit ñi lu tax du koom nit ñi mooy dafa am sosuwaay boo xam ne moo jiitu am ak insaaniyatoom gi loolu mooy outil gi léegi su ko defee nag kooku moom la yàlla jox li nga xam ne mooy nubuwa gi motax nubuwa gi mo tej waye risalatu gi tejul motax yalla ne wax la mu an fikum rasulullah bo fo wax la ilaha illallah da ngay wax rasulullah waye do wax muhammad nabiyullah do wax muhammad abdullah do wax muhammad habibullah muhammad rasulullah ngay wax pataka la ilaha illallah du dag rasulullah du dag kon dagay gis ne risala gi du taxaw muk bes bu set risaalatu gi mu ngi mu ngi dem ba ilaa ba ilaa yowmal yubxasuna ba ba ilaa yowmal yubxasuna gis nga gis nga alaaxira sax buñ fa demee ah muhammadu rasulullahi lañ koy ooxee moo tax yonent yàlla muhammad salaa salaam uutee gim uutee ak mbindeef yi mooy uutee martaba yi da ngay gis ne daraja ji ko yàlla may moom rek la ko yàlla may mooy yàlla da ko moom la yàlla amal moo tax mu ne euh, kuntu kanzan lam uhraf fa ahbabtu an uhrafa fa xalaqtu xalqan fa taaraftu ilayhi fa bi yaarifuni gis nga ko kon xal mbindeef moomu nga xam ne moom la yàlla amal te moom la ci moom la ñuy jaar pour xam loolu lu koy foo koy déggee mooy xaqiqatul muhammadiya moom lay yàlla amal léegi nag soog a bind leneen lu mu bind kon da gis ne mbindeef yi ci xaqiqatu muhammadiya la leen yàlla jëlee da gis ne lépp loo xam ne yàlla amal na ko rek yàlla nga ko amalee ci gannaaw bu mu amalee yonent yàlla Muhammad moo tax bàyyi Ñas di ko wax ne euh, nuuruhu awalul wujudil wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaari wujudi mooy mbir yàlla yi mooy am ak waaye Baay dafa wax ne amam gi moom moom mom yonentu yalla Salam salam mo jitu am yi nuuruhu leram gi awalul wujud mooy be nak am Miri wujud yi euh dom adamay war nañoo ittixoo xam wujudul wujudul nga xamne ñom la yalla amal motax may wax ne Baye ñas bi mi wax ne awjadni haqqan li jab lil kasri fa inna wakilu wakkilu sari siri siri boba lu tax mune Yalla daf ko amal ci deug kon dangay gis ne am yi bàyyi xam na mbir yi moo tax am gi njëkk bàyyi mu ne mooy xaqiqatu muhammadiya mooy leer ak yonent yàlla Muhammad salaa sallam moo am mooy am gi njëkk mooy nuuruhu amam ga awalul wujud mooy njëlbeenuk am fa huwa moom leer googu aslul usul yi mooy cosaanu cosaan yi wala an jaali ak doom yi maay cosaan yëpp leer ak xaqiqatu Muhammadiya moo ci jiitu mooy wane ne kon yonent rek la yàlla bind leneen lu nekk rek mu ngi amee mu ngi amee ci gannaaw boo xamee ne yàlla bind na yonent yonent al moom salaa salaam kon yonent boobu noonu ñu ngi koy waxtaanee lu jiitu muy juddu ci loolu lañ nekk di wax wax ni ak risaalatu gi nga xam ne yàlla jox na ko ko ak nubuwootu gi nga xam ne yàlla jox na ko ko ak li nga xam ne mooy Euh, soppe gi nga xam ne yàlla sopp na ko yonente yàlla moom saa sallam ne ko kun habibi nekkal sama soppe bokkut ak yonente yàlla Ibrahima bi nga xamee ne yàlla wax na ko ne ko Ibrahima al nga xam ne yàlla fu mu wax yonente yàlla Ibrahima daqal na ko bokkaale yàlla. am na kenn ku ko mosoon a laaj na lu tax yonente yàlla Ibrahima euh, ak yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa lu tax yonente nekk soppeem Ibrahima nekk xaritam. lan moo nekk diggante soppe ak xarit yonent yàlla ibrahima xarit googu yàlla def ko defal ko ko mooy tànn gi ko yàlla tànn topploo yonent yàlla muhammad salaa salaam yonent yàlla ibrahima loolu mooy xaritam gi ndax nit su bëggee sa soppe rek nga nekk mu nekk sa xarit ndax yonent yàlla muhammad salaa salaam yàlla moom la bëgg waaye comme yonent yàlla ibrahima yonent yàlla muhammad salaa salaam tey am na ku ma ko mas a laaj ne lu tax yonent yàlla Ibrahima yàlla toppaloo yonent yàlla Muhammad salaa salaam mu ne ko toppal yonent yàlla Ibrahima parce que lu tax yonent yàlla Muhammad salaa salaam yàlla dafa bëgg mu nekk ku mat dafa bëgg mu nekk koo xam ne ay mbiram day am delluwaay parce que nit ñu baax ñëpp mbir yu baax yëpp day am delluwaay léegi nag delluwaayu yonent yàlla Muhammad salaa salaam moo tax yàlla def ko mu nekk yonent yàlla Ibrahima léegi bañ gi yàlla bañ. ñu wax na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi yàlla toppaloon na ko kenn ko am benn ayib moo tax yàlla raxasal yonent yàlla Ibrahima ay ayibam yëpp moo tax yonent yàlla Ibrahima dafay sant yàlla ci tànn gi yàlla tànn yonent yàlla Muhammad sallallahu xiir ko mu topp ko ne ko topp milata Ibrahima hanifan topp maa kaana minal musrikina lu tax yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko toppal baay Ibrahima ne ko bokkut ci bokkaalekat yi maa kaana minal musrikina lu ko waral. mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yàlla bañ mu am benn gàkk-gàkk bu bu ko toppaloo Ibrahima Ibrahima am benn taas loolu mën nañ koo jamee yonent yàlla mu sallallahu alayhi moo tax daxar dafay raxas Ibrahima ba mu set du am benn ayib mu soog koo toppaloo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu soog koo mu soog koo wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam toppal sa baay Ibrahima léegi nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maam Ibrahima ngëneel yim am yépp mu jele, ko jele ci toppaloo gi yàlla toppaloo yonent bi ne ko toppal mam Ibrahima kon topal sa baay Ibrahima da ngay gis ne yonent yalla Ibrahima fepp fu ko yalla tuddu ci alquran da ngay gis mu mu mu mu setal ko ci bokale parce que lutax yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla bëggul ben ayib Ben Sik, bo xamne ne ko sikkal yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bané yàlla toppaloo na ko koo xam ne mës naa nangam wala yàlla toppaloo ko toppaloo na ko koo xam ne am na sikk wala yàlla toppaloo ko toppaloo na ko koo xam ne fekk nañ ko mu mu am ay ayib sàngam moo tax gis nga xataa ay waajuram bi nga xamee ne war naa màgg sax yàlla def leen fi jëlee pour lan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi am benn tâche moo tax ku ku ñu jàng alquran di di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne am na benn fenn fu mu réeree wala fenn fu mu juumee wala fenn fu mu gagee wala fenn fu mu tarxisee loolu dafay tegtale ne yow xamoo yonent bi xamoo ne yow yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam yàlla raxas na ko ci mboolem ayi bi moo tax am na benn ay boromi xam-xam yu ma déggoon ñuy def tafsir ay boromi xam-xam lañu moo ko laal Quran di ko tafsir waaye malheureusement xamuñu yonent bi xamuñu xàq yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax bi yàlla waxee ci alquran ne ko maa kunta tëddri mba bu ko yàlla waxee ne ko wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan Euh, min amrina mu ne ko maa kunta tadri maal kitaabu wala bi nga xamee ne yàlla wax na euh, ci loolu ci alquran waa mu ne yonent yàlla Muhammad yàlla wax ne ko ne ko euh, wa kasaalika awhaynaa ilayka ruuhan wàccee nañ ci yow alquran wàccee nañ ci yow alquran mu ne ko wax na maa kunta tadri boo bopp xam maal kitaab wala imaan xamoo woon alquran xamoo woon imaan mane ne ma ne maa rek tax na boo xamee balaaxa xam usul xam mantix xam li nga xam ne mooy euh, ilmul quran yàlla boole la ci ñi nga xam ne moom ñoom la yàlla wax ne waraafiquuna fil ilmi da nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laaye ji wàccut wax ji jibril moo ko moom ndax jibril yàlla indil na yonent yàlla salaam ay xuruuf ci alquran yonentu xam ko mu lëntale ko indi na ko alif yonentu na xaraftu laam mu na xaraftu miim mu na xaraftu yonentu xam na xari xuruuful liif laam miim te jibril xamu kon yonentu xam na lu jibril xamul beneen bi ci topp mooy subhaana subhaanaka eh, laa ilma lanaa ilaa ma alamtana innaka anta alimul hakim malaayka yépp saxal nañ ci kanam yàlla na ko ñoom xamuñ kon riir yàlla saxal na ko ci malaayka yi wala réeree saxal na ko ci malaayka yi waaye amul fenn fu yàlla saxalee ak réer jëmale ko ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi foo ko dégg ci alquran rek taxawal seet koo xam ne am na tawfiixu dégg alquran mu dimbale la parce que soo ko defut dinga teg ci kaw yonent loo xam ne lu yàlla si teg ci kawam la moo tax ma ne ko wa kazalika aw xay naa ilayka ruuxan yàlla moo wax jibril ne ko ñoo ëf ci yow roxo ñoo wàccee ci yow roxo lu la koy xamal ilayka eh, ruuxan min amrina ruuxu mu ngi jugee ci amru laahi la baxee ko jugee hut ci yàlla ci amru laahi la baxee ko moo tax Baye Niass wax na nooru woo awalul wujudul wujudan fa huwa aslul usuli wal amjaali leeri yonent bi salaa salaam mooy cosaani cosaani mooy cosaani am yi nooru woo awalul wujud al wujud mooy ak am al amru mooy mu ne ko aw wa kasaalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrinaa ruuhu mu ngi baxee koo ci ruuhu googu mu ngi baxee koo ci mbir yàlla yi moo tax bi ko yàlla bañ laajee yonent bi almaam salaa salaam ne ko ruu mooy lan yàlla def na ko xuli ruu min amri rabbi wax ko ne ko ruu mu ngi jugee ko suñ mbir yi kon yàlla bi muy wax yonentu yàlla moom saa sallam daf ne rasulu minallaahi dégg bu baax yonentu saa sallam kon rasulu minallaahi ya rasul bii mu ngi jugee ko ci yàlla ki jugee ko ci yàlla bokkut ak ki jugee ko ci mbir yàlla yi kon soo demee ci inna anzalnaahu fii laylatul fii fii laylatul qadri fii laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul uh, uh, jigal ma inna anzalnaahu fii laylatul qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنظل ملائكة وروح فيها بإذن ربهم فوف لا تخلى تنظل ملائكة وروح فيها تنظل ملائكة وروح فيها يلا واتينا ملائكة نبكي ci وروح فيها fiha foofu mooy alquran parce que wa kasalika awxeena ilayka ruuxan boo bu boobaa dafay obligé wàcc ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu te bu wàccee ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa kunta gi day tegu ci kawam te dafa jomb ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam boppam dafa jomb ci yonent bi léegi nag ruuxu googu nga xam ne moom la yàlla wàccee ci ci inna anzalnaahu fii le fii ci ci euh, euh, euh, tanazzalu malaayikatu wa ruuhu fiihaa tanadalu malaykatu waru fi aj malayka yi bu yàlla waxee na wàccee nañ leen foofu da nga gis ne jibli ci la bokk jibli ma jibli malaaka la waru fi ha alquran la parce que guddi googu ci la ñu wax ne ci la yàlla wàcce alquran kon ruuxu googu mooy ruuxu gi nga xam ne moom la yàlla wax ne ko alquran ruuxu la min amri rabbi dégg ko loolu ci ngay xamee yonent bi salaa salaam bokkut ak fi mu ko waxee ne ko waka wajadaka baalan fahada wa wajadaka haa'ilan fa ahnaa kon dangay gis ne wa wajadaka daalan fa haddaa baatu dalaal googu da ngay gis ne dana firi maanaam mbëggeel kon da ngay gis ne baat boobu yàlla def na ko mu am ay maani yu bari maanaam am na ay firi yu bari yoo xam ne du tegtale rek na réer rek lay firi kon da ngay gis ne yonent saa salaam yàlla da koy setal bés boo ko xamee ne rek tuuma dikki na ci kaw. benn baat rek boo xam ne dafay tegtale ne. lii ak manqué manqué lay lay nuru ci ko yonantu soo xamee alquran xam balaaxa alquran xam xaq yonantu bi salaa salaam doo wax mukk ne fii yonantu salaa salaam darajaam wàcc na fa ndax lu tax yooyu yi jiitu ci moom yi ñu jot a wax noonu mooy risaalatu gi nga xam ne yàlla jox na ko ko li nga xam ne mooy nubooti gi nga xam ne yàlla jox na ko ko ak li nga xam ne mooy mbëggeel gi nga xam ne yàlla jox na ko ak cofeel gi nga xam ne yàlla jox na ko yonantu almaam salaa ko yàlla tànn gis ne ñëwam nekk lu spécial ak mbindinam dafa nekk lu spécial yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ni ko yàlla bindee moom rekk la ko yàlla bindee mooy ci bi muy balaa muy ñëw ak bi ñëwee ci dundam ak ci génn àddinaam te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi dundam am na ay muhadisaat yu bari yoo xam ne feeñ na ci moom ci loo xam ne ku ko gis xam ne lii ku yàlla may kattan rekk moo ko mën mooy xar wi weer wi ngeen gis moo ëpp suuf si yonent yàlla ma salaa bi nga xamee ne euh, yéeféeri màkk yi wax nañ ko ne ko duñ la gëm mukk lu dut ne dangaa xar weer wi mu oo Seydina Alin nday Fatimatu ak nday Aysa na leen nañ leen dem ci Kaaba ga muy ñaan ñu koy aminu bañ gis seen bët weer wi xar wàcc ci suuf ca màkk ñëpp teg ci seen bët dafa am ay moo ci ay karaamaat yu bëri yoo xam ne da caa nekk weer wi moo ëpp suuf si te bu ko yàllay xar di ko wàccee daf ko def ci melo woo xam ne bi mu dikkee daa xaj ci suuf si waxuma sax xaj ci suuf si waaye ci as ndëkk la ko wàccee ba nit ñi teg ci seen bët mu delloowaat ko mu éegaat dellu fekk dayoom ëpp gi ëpp suuf si del del daal di delluwaat te loolu yëpp dafa des ci ay wa dañ duñ koy waxtaanee. planète yi nga xam ne am nañ weer yu lune bi ah, moo ëpp suuf si na nga xamee ne weer wi biddiw bi moo euh, jant bi moo koy tëbb jant bii ngeen gis biddiw yi ñoo biddiw koy tëbb am na biddiw yoo xam ne jant bi niñ ko soree noonu la soree biddiw yooyu ba nga xam ne tey biddiw yooyu buñ jegee weer wi dañuy seey biddiw yooyu buñ jegee jant bi jant bi day sey jant bi am na noo xam ne bu ko jegee weer wi weer wi day seey yaa ngi dégg kon loolu ñoom ñëpp nag seen pouvoir boobu ñu am ak seen degré boobu ñu am ñu ngi ko jëlee ci xaqiqatu muhammadiya ci leer ak yonent yàlla muhammad salaa salaam te jant bi jant bi ni mu tiimee weer wi ni mu ni mu mel ci weer wi noonu la biddiw mel ci moom te biddiw am na biddiw yoo xam ne noonu lañ mel ci biddiw yooyu nga xam ne noonu lañ mel ci jant bi moo tax bas naa ci def benn waxtaan benn waaye xëy France nga ma effectivement tu as raison parce que jant bi mu ngi ci 5000 degré weer wi 5500 degré biddiw wi ñu ngi ci 50000 degré te ñun ñu ngi ci 20 degré 40 degré fa la ñuy yem diggante 40 degré ba 5000 degré gis ngeen mel 5500 degré ñun 100 degré rek moom lañu am ndox mu tàng mu bax 100 degré ndox day bax. léegi ñu war a am 5500 donc 500 degré rek ëpp mënuñ ko jëfandikoo 500 degré boo ko bëggee moom la gaa yi di baxalee moom la bëgg gaa yi di baxalee weñ wala 300 degré moom la gaa yi baxalee weñ weñ boo ko dugalee 300 degré mu seey mel ni ndox kon da ngay gis yonent yàlla daawooda la ilaha illallah muhammadu rasulullah la